di alalu réew mi sénégalais yi li ñu moom ñu seet ñañ ko dénk fan lañ koy dugal ba tax mu yebal la député du peuple ñëpp nangul ko ko di Guy Marius Sagna ngir mu saytul ko mbir mu ni mel la jaaree ko ci bu bopp député bi nga xam ni moom la daal di ngàlloo moom Guy Marius Sagna am na ay kaddu yi mu jot a yëkkati jëmale ko ci bastiru Diomaye jaaxaar Faye ak ci Ousmane Sonko dañu koy teewlu doog a dikkaat ci suñu jàngat waaye bu leen fàtte abonné aimé bi partage ko ngir ñu bëree bëri dal di ci mën a jot AGT News. mbokk yi nuyu naa leen seen xarit seen mbokk seen surga bokk coalition Diomaye président mooy wax ak yéen ñun ñoo ko déggandoo nee nañ du ñu génnee Bassirou Diomaye Faye du feeñ RTS comme ñun ñooy jaay doole ñun ñooy campagnal Bassirou Diomaye jaaxaar Faye mbokk yi Bassirou Diomaye jaaxaar Faye. daf ma woolu woon ci kaso Cap Manuel mu ne ma Guy Marius Sagna dénk naa la ñaar benn bi dama bëgg nga set nga set setantal benn société boo xam ne mu ngi liggéey ci wurus fële ca Kédougou dafa waroon fay cent cinquante milliards de francs CFA ci lembo gouvernement bu ma ki sàll fayloo ko quatorze milliards de francs CFA. ci ñaar yi ci diggante bi mu am cent trente six de francs CFA cent trente six yoo xam ne ñàkk nañ ko mënoon na dugg ci mbay mi mënoon na dugg ci njàng bi ci wér-gu-yaram ci kaaraange ci ndaw ci ndaw yi ci jigéen yi ak ñoom seen mu ne ma dénk naa la ñaar ma ne ko naam jomaay mu ne ma demal seetal ma fële mburkat am na suuf soo xam ne dañ ko caxat caxatee seen biir sàcc ko luubal ko xañ suuf ñi nga xam ne ñoom ñooy askan wi li ma bëgg a wax foofu mbokk yi mooy. koo xam ne ñu ngi ko noot dugal ko ca kaso koo xam ne ñu ngi ko jaay doole dugal ko ca kaso ci ay sos ci ay tappale lijjantewul li nga xam ne dañ ko noot moom ci kaso bi muy lijjanti alalu am amu askanu Sénégal fu muy dugg ngir ñu saytu ko saytuwin bu mucc ayib ngir suqali Sénégal ngir génnee askanu Sénégal si jafe-jafe moo tax Bassirou Diomaye Diakhar Faye waruñu waruñu ko ñàkk waruñu rëcc nañ ko fal cinquième président de la république du Sénégal waaye Bassirou Diomaye Diakhar Faye bettuñu ndaxte ki ko tànn muy président Ousmane Sonko def na fukki at ak juróom ci l'impôt et domaine amul benn fistine boo xam ne sàcc na ko amul benn pàkk suuf boo xam ne sàcc na ko loolu di rek firndeel ne Diomaye mooy Sonko Sonko mooy Diomaye waaye mbokk yi ah dañ doon faral di wax ne suul gaz du ko tere xeeñ waaye suul Bassirou Diomaye Diakhar Faye du ko tere feeñ tëj ko kase tëj ko kaso du ko tere am ndam ah waaye itam xañ ko RTS du ko tere am ndam Diomaye mooy Sonko Sonko mooy Diomaye ay wa leen ñu voteel Bassirou Diomaye Diakhar Faye AGT News ñoo déggandoo kàddu yi nga xam ne Guy Marius Sagna dali dina ko yëkkati jëmale ko ci Bassirou Diomaye Diakhar fay mu nekk koo xam ni mbirum askanu Sénégal yitteel na ko loola fi seen koppar di dugg da koy lijjanti ba mu ne kocc ne koroca ndax moom comme mantooram di Ousmane Sonko dañoo nekk ca biir impôt et domaine zéro faute nekk fay inspecteur te nag ba tey jilee amul dërëm boo xam ni teg nañ ko sur la table ne ñoom ñooñee ñoo ko luubal Ousmane Sonko ci boppam fukki at ak juróom la fa def amul benn dërëm buñ ko mën a toppee amul itam mètre carré boo xam ni teg nañ ko ci ndoddam ne moom Ousmane Sonko moo ko fa daal di jël lu ni mel dafay wane ne ñi nga xam ne ñoom lañ seqal langum politique gi ute nañ lool ak patriotes yi nga xam ne ñoo porté projet bu Ousmane Sonko bile nga xam ne askanu Sénégal ñëpp ci la ñu yaakaar ngir changement daal di am te nag mënuta ñàkk ci réewum Sénégal jamono ji ñu toll nii ndax askan wi yàkkamti nañu askan wi lenn dong la ñuy xaar muy kii di président Macky sàll ak i ñoñam abal ñu bopp ngóoru Sénégal boo ko defee nag comme saa su nekk ñu tànnal suñu bopp suñu président waaye li ci particularité moo di cette fois si dafa doon loo xam ni askan wii ñoo ci yeewu am conscience ci fi ñu jëm am ñan lañ ko seqal ak enjeu yi ci nekk loolee moo waral nous n'avons pas droit à l'erreur waruñoo jum koo def bés 24 mars ñun askanu Sénégal suñu coono bés boobule la ñu war a tàmbali di ko daal di fàtte dafay fekk nag ñu am taxawaay bi ci war a ci la ñuy def suñu ay carte bu ñu nangu kenn ku koy daal di jënd suñu ay baat junneeg ñaari junni warul tax ñu daal di koy jox benn candidat bu war a yor suñu am réew juróomi at nañu ko jox koo xam ni wóolu nañu ko doyloo nañu ko am yaakaar bu rëy rëy ci moom te nag kenn umpalewul Ousmane Sonko engouement bi nga xa ni jur na ko ci réewum Sénégal ay at a ngi nii ñu topp ko sonal waaye nag tey la gën a taxaw tey la gën a nekk ci yoonu njub bi nga xam ne ñëpp ci lañ ko daal di xàmmee nañu dem jëli suñu ay carte électeur waajal élection présidentielle yi lii dafa am nag loo xam ne boo ko amee da koy téye say fukki yoxoo di leader yoo xam ne xam nañ fu ñu jëm xam fu ñuy teg seen tànk am parcours ak discours bu mucc ayib ñu koy wax sànq Ousmane Sonko dafa def fukki at ak juróom ca impôt et domaine zéro faute ne deetawaay mu ñu programme boo xam ne bu mucc ay discours Ousmane Sonko ñi ka daan teewlu ñëpp xam nañu ne nekkul discours como nekkul itam ay kàddu yum doon yëkkati teg ko ci ma neex ak bëgg loo xam ne Sénégal yi dañ ko ciy toppee dëgg la jiital di ko wax seetu ci lenn moo tax bi ñu demee ba ci biir askan wi ñoo ko wuyu si même sax ñi nga xam ne d'accord ñu woon yow doxalinam ñu ci bëree bëri ñëw nañ ci moom xam ne waa ji kat mën nañoo am yaakaar bu rëy rëy ci moom ndax askanu Sénégal yàgg nañoo am boobu lépp yaakaar waaye dañ teg seen bopp nguur seen yaakaar bopp ba tey ci la ñuy yi ñuy waajal bu koo xam ne daf ñuy détourné ci suñu ay objectif 24 mars bésub libération la war a doon au a a gagné yile élection du nekk victoire bu Jomaay baabu Ousmane Sonko nekk itam victoire coalition Jomaay président victoire peuple bi lay doon askanu Sénégal moo nar a am ndam lu rëy ndam loo xam ni da ko ko nar a féete ay fan féete ko ay weer féete ko ay ati ata féete ko ba ci ay sëtëki sëtaatam ndax nag ñëpp ci nar a gis seen bopp ñëpp ci nar a jëriñu askanu Sénégal moo nar a soppi aw doxalin réew mi moo nar a yegg foo xam ne ña nga ko fa doon xaar ay ati at moom suñu bopp bi nga xam ne ñi ngi ko doon jooy yàggatu la dinañu ko am ñu ay coono dina jeex dinañ teg suñu bopp nguur ci loxo yi ñoo xam ni dinañ ñu yërëm xam suñu valeur xam ñu ñu ay àq place bi nga xam ni Sénégal amoon na ko ci àdduna bi ñu delloo ko fa bu ko defee nag ñëpp dinañ xam ni benn régime doy waar moo fi nekkoon ay Sénégal changé wu la askanam itam ñu démocrate lañ respecté doomu aadama respecté seen réew bëgg ko te nag développement dong la ñu soxla moom la ñuy yootu moom la ñuy àndandoo ak képp koo xam ni bëgg nga réew mi comme ku ci mel ni Ousmane Sonko ak Diomaye ngir daal di koy yootu jëli ko téye ko ba képp koo xam ni doomu réew mi nga fi baa nga nekk bitim réew mën ci daal di jot AGT News. Même étant en prison, Bassirou Diomaye Faye comme Ousmane Sonko continue de s'inquiéter de la situation précaire que vivent les Sénégalais. Il continue aussi de s'inquiéter de la malgouvernance. Le régime en place, tout le monde le sait, a échoué, mais aussi a brisé le rêve des Sénégalais, raison pour laquelle le peuple leur a tourné le dos et s'est fixé comme objectif renverser le pouvoir démocratiquement, élire le candidat Bassirou Diomaye Faye dès le premier tour. Ce qu'essaye d'expliquer le député du peuple, Guy Marius Sagna, c'est que le candidat Diomaye Faye, depuis la prison, continue de s'inquiéter des affaires de la cité et lui avait chargé de vérifier les milliards du contribuable, ce qui témoigne encore une fois de l'amour qu'il porte pour la nation. Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye sont des inspecteurs des impôts de luxe luxe sans problème mais ils n'ont jamais été épinglés pour quelconque dossier Ousmane Sonko c'est la raison pour laquelle les jeunes patriotes le surnomment mu sell mi c'est-à-dire celui qui n'a jamais dérobé un seul franc du contribuable sénégalais celui qui a servi sa nation en toute dignité et responsabilité c'est ce dernier qui a choisi Bassirou Diomaye comme candidat pour sortir les Sénégalais du gouffre dans lequel nous a mené le régime du président Macky c'est la raison raison pour laquelle chacun d'entre nous doit se retroucher les manches. Allez, récupérer nos cartes électeurs, se préparer pour le jour du 24 mars, jour du scrutin où les Sénégalais devront briser les chaînes, ainsi espérer un Sénégal prospère, une vie meilleure qui pourrait garantir une vie saine et apaisée dans la tranquillité, la confiance et l'espoir d'un Sénégal meilleur. AGT News.